asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñu ñu suivre ñëpp seen seen sama xalaat TV di leen fàttali yéen a seen programme Fagaru Fagaru na comme ni ngeen ko xamee professeur Ousmane Ndiaye lañ ciy dalal muy borom Boga bio nekk tradipraticien nekk fële ci diwaanu Kër Massar professeur nag ginnaaw ba ñu ko nuyoo ziar ko comme yéen ñuy suivre bu fekkee yéen a ngi topp vidéo bi passé ñu ngi woon ci feebaru asthme ñëwoon na ci asthme lan la fan lay jóge euh, jafe-jafe yi nit ki ba fi mu ko mën a euh, yóbbu comme ay loraange Euh, vidéo tay bi nag dañuy ñëw ci li nga mooy ay solution muy ay saafara wala saafara yi nga xam ne am na ci fii ci Sénégal jëm ci wàllum gàncax ci le professeur di ñëw euh, baaxee ñu ci ay euh, saafara muy ay solution kon professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Pape maa ngi lay fay. Hmm. di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi suivre yëpp. Hmm. góor jigéen mag ndaw. Hmm. bàyyiwuñu kenn. ñu ngi ñëpp di leen ziar. professeur nag li ñu bëggoon xam tey mooy. gàncax yi sax ci réew mi. voilà euh, yan ñoo ci faj asthme te efficace <laughs> xam naa lu jar sa muy bari mais ñaaroo la ci euh. ak tamit nan lañ koy jëfandikoo efficacement voilà euh, waaw Pape xam naa ni ba la ñu ñëw foofu moom wax nga lu lu jafe tontu moom <laughs> parce que asma moom faj ko moo gën njëkk jafe déjà problème la mm. waaw vidéo yi passé mm. xam naa dinaa ci ñëwaat waxoon na ni man du ma du ma faj asma mm. mën nañ koo calmer nag ba dootul sonal nit ki mais nag yàlla li muy def tamit Pape euh, maa ngi la koy wax sànq am na benn góor goo xam ne démb rek woo na ma may ma benn secret ni ma naa la jox lu gaaw ci asma kon loolu xëy na bis bu buñ ko testé moom te euh, yàlla def muy lu gaaw ci asma ñàkk dañ leen ko indil incha allah incha allah moo taxit partage a baax gis nga waaw euh, maa ngi doon wax ne man faj asma far yàlla am na ko ma jox may loo xamante ni moom macha allah. <laughs> moom seetaan la. Ah. wax la wax la solution bu mu xam solution waaw. Mhm. gis nga te loolu yépp lii yàlla ak lii rek moo ko indi. Mhm. kon moom it ñu ngi ko ciy sant ci partage bi mu def moom it. Mhm. waaw nga xam-xam du doy Pape. dëgg la xam-xam du doy. tey loo xam. am na koo xam ni moo la ëpp xam-xam fuuf. te mu ngi ci toog te kenn dégg ko. <laughs> toog di la seetaan toog di la seetaan waaw <laughs> te booy wax sax ay erreur nga rek ngay wax ci kanamam. <laughs> loo wax erreur la fi na am na ko xam ne mi ngi ñuy déglu. <laughs> li ñuy wax yëpp erreur la ci moom. parce que daf fes dell la xam-xam. am koo xam ne nag yaa ngi koy yéem nga wax yëpp nga nay jàpp ni xam-xam bu mag la parce que moom it xamul xam comprendre. Mm-hmm. donc moo tax xam-xam dafa yaatu. Mm-hmm. da ngay wax dara nit. ndekete ma ngi cee def leneen ak leneen ak leneen. Mhm. wala mi ngi ci yor teraangaam. Mhm. te ci loolu rek la ko yor te mënoo koo xam comprendre donc xam dafa yaatu. Mhm. bu ko nag moom it dinañ partager loolu incha allah. bu ci yàlla àndee. mais parce que euh, feebar la boo xam ne Pape dafa naqaree faj. waaw ba mu wér carrément moom. man damay wax ne mënuma ko. mais mën nañoo traité nit ki. ba nga xam ne feebar bi dootu ko sonal. waaw ah, mu soulagé wu daal mu xam ne daal bu fekkoon da ko daan daaneel lu bari dootu ko daaneel lu bari mhm. bu fekkee da ko daan daaneel lu jege dootu ko daaneel lu jege bu mm, fekkee da ko daan tee liggéey dootu ko tee liggéey mais du tee nag asma baa nga fa d'accord mën daaneel de temps en temps xam nga Sénégal booy wax Pape da ngay wax lu leer waaw ah, li que nit da nga leen di wax da nga oh. daaneel ba ñuy dee bis bu leen daaneelaatee benn yoon rek ñu ne waa waxul dëgg mhm. fekk waxuñu leen loolu mënuñu ko faj mhm. jeex na loolu leer na <laughs> léegi nag yàlla indi na xéewalam ba am na ku ni ma mën na ko faj jox nañu lañ koy faje loolu dinañ ci ñëwaat incha allah. voilà léegi nag kon solution yi nga xamante ni mën na soulager asthme. Mhm. ay gàncax. Mhm. léegi yan la ak nan lañ koy jëfandikoo ñu reformuler question bi. waaw kay lu mel ni jinjeer. jinjeer waxoon nañ ko jus de jinjeer. Mhm. bu koy am di ko naan bu ko neexee sax ma boole ko ak limon. citron di ko jël baax na ci moom. lu mel ni ataaya bi ataaya bi. waaw ñi naan. def ko warga bu oyof. naan ko baax na du ko toggee comme ni ñu koy toggee nag bu fekkente ni jinjeer la tamit bu ko neexee mu def ci meew waaw donc meew mën na ci def citron wala mu def ci meew bu mu ci am baax na café Touba gi tamit am na ñoo xam ne bu ñu waaj a asma bu leen di waaj a daaneel bu ñu ko naanee da koy calmer café Touba mu naan ci kaas café bu tàng lay nekk nag waaw garab gi nag bi ñuy wax nga xamante ni benn gën ko ci efficace daanaka mhm. eh, muy mbal mbal garabu mbal. garab gu yéeme la. Mm-hmm. lu bari lu muy faj sax. Mm-hmm. mais euh, baax na ci asthme. Mm-hmm. donc bu fekkee nit ki am na benn euh, kudd bu ndaw. kudd bi ñuy yëngalee kafe benn kudd bu ndaw rek bu mu fees bu baax a baax nag. benn kudd bu ndaw mu def. ñax la def nañ ñax la mbal nañ ci vidéo la waaw. donc bu amee benn kudd bu ndaw rek def ko ci kaasu meewam. def ko yëngal ko di ko naan suba ak ngoon yàlla mën na ko mën na ko saafara baax na ci d'accord moom garab bu baax la ci affaire yooyu. Mhm. lu mel ne xottu bitel aussi. Mhm. defoon nañ ci émission. moom it bu ko amee di ko infuser. moom la ñu war a waxtaanee sax si vidéo bi topp. bi ci topp waaw kay bu ko defee donc quoi ça fait l'occasion. Mhm. kon nit ñi mën nañoo suivraat ci émission bi ko topp ñu jox leen njariñu xottu bitel. donc bu ko amee di ko infuser aussi mën na ci baax. lu mel ni naanaa ak dute nga boole leen ñoom ñaar. di ko infuser di ko jox xale surtout bu dee asma xale bu ci sa met ay 6 mois 8 mois dem ba asma bi dañ. d'accord xalé bu ndaw. Mhm. donc ba amee nana mhm. ak douté mhm. wala nana kessé kessé baax mais nga boole ko si xaw bi douté bi gën. mais bu ko togg nak on koy infuser. ko dem bu yag bu dindi euh, asma xottu màdd aussi. mooy màdd defe naa jamono ji am na. am na waaw li ñuy sànne xott bi. Mhm. moom it nit ki bu ko amee di ko baxal. di ko mhm. naan baax na ci ñi nga xamante ni amee na asma. Mhm. Pape defe naa yàgg moo fan ñaar wala waaye mais daa mel ni. bari baax na baax na waxal. <laughs> xaw ma mi nekk yomb yi disponible rek. <laughs> waaw li nga wax ni yëpp moom facilement lañ koy <laughs> facilement donc bu ko defee yooyu. bu koy nit ki amee di ko def rek yàlla mën na koo dimbali ci asmaam. waaw macha allah euh, du ko sonal incha allah bu neexee yàlla. moom yomb na. yomb na waaw eh, kay gar xobu xottu bi teel. xottu bi teel waaw naana. waaw eh, xollitu màdd. waaw ak sexaw. dutee waaw sexaw voilà ak jinjeer jinjeer yooyu moom yomb léegi dosage yi nag euh, ndax mën nga see par exemple tey nit ki bu jëlee jinjeer ak limam. nu mu hmm. ko war a dosé. waaw ça dépend ni mu koy doose rek bu fekkente ni. par litre lay def wala par kaas lay def moo xam. Mhm. maanaam day defar jus de jinjeer exemple. Mhm. Mhm. jinjeer moom jus bi xam na nañ koy defaree. bu la neexee euh, bu fekkee litre bi nga def. def ko par rek mooy gën a noppale. mooy gën a léegi boo defaree sa jus jinjeer. def ko sa un litre exemple. jus jinjeer moom du ma jàngale nañ ko defee xam ngeen nga defee mais bu la neexee nag nga bañ ci def bu ci def suukar. waaw wala boo ci def suukar nga def ci lem à la place. léegi nga wut sa limon. Mhm. limon bi boo ci amee quelques doom rek lu mu am ba huit doom baax na. Mhm. cinq six sept huit ba dix. Mhm. boo ko amee paccal ko. daf ko jus sotti ko ci jaxase leen. bàyyi ko noonu. soo koy naan kaasu ataaya rek nga koy naan. suba ak ngoon waa suba ak ngoon ko kaasu ataaya rek baax na waaw. d'accord bu la neexee moom nga ci moom nga ci naan. bu dee nag da nga si deful limon def ci meew bi tamit. même chose waaw bu fekkee meew bi ba mën nga def kaas bu fekkee da ngay defal sa defoo ci meew kii bi. limon bi. Mhm. mën nga defar sax benn kaas comme kaasu ndékkikaay yi. nga defar sa benn kaas jus ba mu digg rek. Mhm. nga jël lem kii bi. Mhm. meew bi def ci. meew waaw yëngal noonu. naan. d'accord deux fois par jour suba ngoon baax na. bu dee mbal bi moom. mën nga jël benn man bu amee si sungufu mbal exemple. wala boog su la neexee nga def ko sunguf. su la neexee nga jël garab bi noonu baxal ko. xob xob yi. bu jëlee xob yi togg ko def ko infusion ba pare nga di ko xel par genn wàllu kaasu ndékki di ko naan suba ak ngoon mhm. su fekkee du crise su fekkee problème crise la nag nga di ko naan ñetti yoon mhm. par par par par jour bu fekkee dafa am crise bi quoi d'accord donc bu fekkente ni ak ban moo desal naanaa bi ak kii bi naanaa bi ak ak du sexaw bi waaw waaw naanaa ak sexew noonu la moom it da ngay jël wut euh, naanaa mhm. wut sexaw boo lu lu xaw a yem rek bu fekkee un litre nga par un litre nga koy def Euh, parce que ñaari garab yooyu nekkuñu garab yu toxique. waaw euh, amul yu lewet lañ yu lewet lañ quoi amul quantité bu la ciy gaañ. Mhm. da ngay xool lu yam rek nga jël ko. Mhm. baxal euh, kii bi raxas ko ñoom ñaar boole leen teg baxal ndox mi ba mu sotti ci. Mhm. ub ko bàyyi ko ba mu sedd. nga filtré di ko naan. bu fekkee xale la nag surtout. mën nga koy defal lu toll kaas ataaya. mën nga ci def meew defaale ci. lem. wala suukar. pour mu koy mën a naan pour mu neex ci moom quoi. Oh. mais bu dee mag moom jarul yooyu. mën na hmm. mën na koy naan direct. d'accord donc noonu noonu lay demee ko xottu biteel bi. xottu biteel waaw xottu biteel nag moom foofu moo jar a hmm. parce que garab la goo xam ne dafa xaw a toxique tuuti. Hmm, donc ci litre ndox moom. ñetti xott donc ñetti xob rek baax na ba ñeenti xob kese kese. day na ñetti xobu xottu biteel kese day na wala ñeenti ngay jël def ko infusion. def ko infusion ci litre ndox. doy na sëkk di ko naan kaasu ataaya. suba midi ngoon bu la neexee wala suba ngoon. Mhm. ñaar yooyu. d'accord donc donc yooyu nga xamante ni boo ko jëlee moom yàlla mën na la mën na la dimbali quoi. Mhm. kon professeur boo amee loo ci bëgg a tëje mhm. euh, ñu tàggoo ñi ñuy suivre ba vidéo bi ñëw. nga xam ni dinañ ñëw ñoom ci garabu xottu butéel. waaye nga xam ni yëpp mën na koo faj. nga ñëw comme tey ci asma bi wax nga lu ñu koy utiliser. mais am na yeneen yu muy faj lu asma. lu asma ci vidéo bi effectivement sëñ Pape comme liñ ciy tëjee rek li ñu waxoon sànq ñi amee asma. Mhm. Euh, surtout Magal tubaab mi ngi jege si ak gàmmu Tivaouane. Mhm. ak yeneen événement bu ñu mënti dem. Mhm. waaw wala bu ñuy génn rek. nañuy gànnaayoo seen i garab bu asma.

yóbbaale say garab donc loolu daal lañ ci yokk wasalaamaaleykum wa rahmatullah